faraidul xusli lii mooy faratay cangaay faslun cangaay xastun mooy yéene yu tadaru juj ko teewlu maanaam na ci faratay cangaay yéene joox faratay cangaay li na su ko soowee buy tàmbali yéene fi saasa ndax ndegam mboolem yaram wépp ñu raxas ko farata la kon bu ko neexee buy tàmbali daal di yéene fi saasa fawrun aku gaaw dañ koy firee gaaw rek waaye mooy sësale maanaam boo xasee tàmbali bul ko dagg di dem di waxtaan ba ngay faj ben soxla soo ko defee rek ñàkk ko susali te tey ko mu dal yàqu xumoo mu dal ki ak matale ragg ga maanaam fenn fu ne nga fexe ba sa loxo ak ndox àgg fa nga bomb ko loolu ba tey farata la taxlilu shahari ak xalil kawar ga foo kawar ci saw yaram rek nga yëngal ko ba ndox ma àgg ci biir ba mu tooy ba ci deru yaram ba ba tey farata la kon ci ni wàññee moom yenti farata moo nekk foofu fataabiya na nga toppaat alxaf yi aji nabb ja mis la rukk ba tey ni kem ñaari bëtiwoom ya wal ibbuti ak poqutaan ma nee na nag booy sangu farata da ngay seet ruq yi nga xam ne moo am ci sa yaram nga nemmi ko bu baax yóbbu fa sa loxoog ndox ba mu wër ne ne ba mu wër ne set na mel ne ñaari bëtiwoom yi daa am ab xóot-xóot poqutaan bi tam noonu da koo am war ruq yi ak teppaxu teppaxu mel ne bu dee cosaan lupp bi wala biir lupp bi lu mu ci man doon nañ ko nemmiku bu baax a baax boo baynul yi ak diggante ñaari njekkikaay diggante ñaari njekkikaay day am ab xar-xar foofu itam na ko nemmiku ba loxoom ak ndox àgg ba wasil na nga jokkale limaa ñeel la nga xam ne xasura jafe na bil min jili cib sarbet wanax wi ak lu mel ne moom nee na nag foo xam ne ci saw yaram nga àggale sa loxo daa jafe daa tudd sarbet waaye mooy lu mel ne njàmpe wala beneen morso sarbet boobu ba tey baax na maanaam bu fekkee mën na am leneen loo mën a àggalee ndox mi niki njàmpe boobu wala sarbet bi wax wala benn musuwaar mbaa yooyu kon nga fexe ba àggalee fa ndox ma ca loola gal xabli niki ak buum niki buum sax boo ko mënee laxaar fa sa loxo jotiwut moom nga fexe ba mu àggale ko fa ba tey foofu loolu baax na lim ci tek nag ne wa tawkil ak wakil wakil moy délégué manam woo ko la ko ragal mel bu fekkee am nga koy seel nga woo ko mu ragal la ko ay ñoo daa ñu bari daal liñ gëna liñ gën a su fekkee woo kenn dong mu raxal la ko mo ci des saye ba bàyyi maanaam fa xëppee ndox rek bay fepp fo xamné ne sa loxo mënu fa ag amu leneen loko fa agalé ci sa loxo niki njamp gi mba bu gi mbaa yooyu bu ci wote rek desee sey ba bàyyi ko loolu sa jaan wàcc na sa xëpp fa ndox rek da baye